والصلاة والسلام على أطهر روح وجسد النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan seen télévision bii di TV rawatina seen émission bii di kàddug daara ngeen ci ànd seen mbokk seen xarit Cheikh Bachirou Mbaye daaray daarul alimil xabir Touba Sourah Touba Ndaamaatu ñoo ngi fii ci tey ci tey ci yoonu kër kàbb nga xam ne ñëw fii ci barab bu màgg màgg boo xam ne bàyyi ko ci dëkk bu màgg bi di tuuba mu nekk barab bi ñu taxaw mu nekk barab boo xam ne léppi daara la kenn ku ne xam ne ne kàddu daara ni ñu ko daan defee dañ daan dem toog waxtaan ak sëriñ daara bi ci programme daara jëg li ci aju ak naka la gone yi nekkee ci daara ji ak timit yenn jafe-jafe la daara ji dund ak yi nga xam ne daara ja bëgg na ku ko ci jàppale tey nag moom dañoo ñëwaat ci beneen yoon boo xam ne kàddug daara la waaye nag comme li ñeen ko waxee kàddu daara li koy def mooy dañ koy def ngir sëriñ daara yi jafe-jafe yi ñëkk bu munta dañ tamit mu wàññeeku bu baax a baax ñoo ngi ndokkeel mbooleem koo xam day yëngatu ci alquraanu karim rawatina jamono bi gis nañ ni ñu bare bare ñoo ngi def seen kemtulaay kattan ngir daara liggéey bi gën jëm ca kanam tey nag ñoo ngi ci barab bii ñu taxaw bu ko waxee mi ngi tudd al manhalu soofi daara ji nga xam ne sëriñ Fallou Bousso Abdoul Moutalib moom moo ko sos mu nekk njilli di fi jàngal alquranul karim kenn ku ne xam ne daara ji ma nga woon fee ci biir dëkk bi ci ndaamaatu ci kër ga waaye yàlla dogal na kenn ku ne xam ne jamono ji biir dëkk bi ni mu tëddee nga xam ne njàngale mi day dem ba nga xam ne fi nga daan jàngale day dem ba xat ba nga xam ne li nga bëgg sax dootoo ko man mu Niger fii nag liggéey boo xam ne da ko fas yéene def muy liggéey alquranul karim ñu ñëw fi nag di nuyu mbooleem koo xam ne doomu daara la mbooloom koo xam ne yaa ngi safoo alquranul karim moo xam foo mënti nekk ngay ab jullit di wuyoo la ilaha illa allah rek foo mënti nekk sama kàddu gi bëgg naa ma ak si jaw ba àggee si yow nga jàllaleel ma ko daara jiite damaa ñëw kàddu daara la waaye damaa ñëw ngir woote woote liggéey boo xam ne dañ ko naal ngir defal ko borom bi subhaanahu wa taala te yéen ñëpp jàng ngeen ci alquranul karim borom bi wax ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah liggéey bi damaa bëgg bokk ci liggéey yi nga xam ne da leen di jiitu seen bammeel di leen leeralal di leen gunge ba yowmal qiyaamatul akbar mu ànd ak alquraanul karim ñu ramm leen tabbal leen aljannatul firdawsil aala kon nag daara ji nga xam ne mooy almanhal safi ku xool gis ma barab bi mi nga toll ci 40 mètres carrés mu nekk daara joo xam dañu fay nazar ab jàngukaay boo xam dañ fiy jàng alquraanul karim di ko mokkal di fi jàng xam-xam di ci am ay mustawa yu kawe ngir mën a liggéeyee la ko diine rawatina nag liggéey ko toolab Serigne Touba mbaar moo xam ne tamit dana yaatu ba xale yi nu mënti toll toll dana mën a ëmb mbooloo mu baree bare man leen a jàngal alquranu karim ku gis sama ginnaaw xam ne liggéey bi borom tàmbali na ko alquranu karim ñi nga xam ne ñoo ciy yëngatu dañ koo bëgg ba noppi xam ko waaye yemuñu ci di xaar kenn waaye jamono bu ne luñ am rek ñoo ngi ca def ñoom di xaar ni ñu ñëw ku gis liggéey bi xam ne sori na lool waaye nag lii des mu ëpp xam nga liggéey bi toll nii boo ko naalee mu war a àgg ci 52 millions te xam ne mëtagut 10 millions kon yaakaar naa bu ñu doon wax ne dañ koy xaaj juróomi xaaj mën nañoo wax ne benn rek moo jot a dem des na lu baree bare bari kon nag maa ngi ciy woo mbooleem rawatina njabootuk Serigne Touba gi di nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir di ko ñaanal sama borom yàggal ko fi lool te wéral ay cëram. ba liggéey bi nga xam ne moom la fas a liggéeyal maamam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul sama borom defal ko la ci kawe njortam te ñu ànd koog moom ci barke Cheikhul Xadim di nuyu mboolam ne moom suñu Chouaïbou di ku bëgg lu baax yàlla dogal na gisante bi bëriwut benn luñ fii ma taxaw li tax sama xel dem ci moom mooy lii ma sol dama ko jox ngir alquranul karim moo tax sama xel dem ci moom maa koy nuyu ti rek ci loxom nuyo bi njaboot mbooleeg njaboot Serigne Touba gi di ko ñaanal ak gudd fan ak wér ak mbooleem ay magam ak rakkam kon liggéey bi yow mi nga xam ne yaa may gis ma sa dërëm yow mi nga xam ne yaa may gis sa milliards ya nga yor wala millions ya nga war a doon mën a jël engagement tabax ba mu àgg nawuma la nga ca def ndax li nga def yaa koy lebal yàlla te man dha alladi yuqridu allaha qardan xasanan fa yudaa'ifuhu lahu adaafan kathira yow mi def yàlla rek moo tax ngay def fii ku fi dugal sa dërëm ñu yëg ko ñu ñàkk ko mën a yëg defal nga ko yàlla ci torb alquranu karim te belaayu mi diin incha allah jëf la joo xam ne du dakk mukk ndax buñ fàtte ne yonent bi waxoon na ne nit bu fi jógee mbooleem ay jëfam day dagg ba mu des ñett sarax bu mu saraxoon wala barab bu mu tabaxoon ab jàngukaay wala gasub teen lii nag yaakaar naa kenn du fi dugal sab dërëm ëllëg ngay rëccu naan foo ma ko dugaloon kon nag maa ngi leen ci wow mbooleem rek képp koo xam ne ngay safa alquranu karim liggéey baa ngi nii lenn rek moo tax ñu def ko nekkul foo xam ne ak kërug dëkkuwaay la mbaarum jàng alquran lañ fi soxla ay dëkkuwaay yoo xam ne gone yi dañu ci mën a dëkk di jàng alquranu karim ay nekkuwaay yoo xam ne danañ fi mën a toggoo loo xam ne xale yi nekk ci biir danañ fi mën a jëfandikoo ak ay wàccaay ku gis daara ji nii xam ne mi ngi ne toll na ci juróomi néeg la fi sëriñ bi tàmbali ñett yi kuule nañ ko moo waañ wi mu des ñaar ñaar ñaar lépp lépp ku ko xool xam ne daal moom maa ngi ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim yéen ñi nga xam ne mbooleem képp koo xam ne da ngay safal alxuraanu karim maa ngi lay woo maa ngi lay woo bàyyiwuma kenn nag kenn liggéey bii tey moom ab woote la boo xam ne kaddu daara moo koy woote jaar Rafah TV mu ñëw fii ci daara ji nga xam ne mooy almanhalu soof yi kon ñoo ngi leen ciy woo mbooleem kuy safo alquranu karim ak fépp fooy mën a nekk xam nga nekk ci biir réew mi moo xam nga nekk bitim réew ak foo mënti nekk rek maa ngi lay woo ci kaddu gi nga xam ne mooy kaddu daara ji rawatina nag yéen ñi nga xam ne yéen a jaaroon ci daara ji yéen laa ci jiital kaddu gii ne dem ci yéen kenn ku ne na ko jottal moroomam moroomam ma comme am mooy xarate ma ko jox ba kere képp koo xam ne rek saw ñaq xaj na ci maa la ci woo nga ñëw ci dama fas yéene mu àgg incha allahu taala dama naan bu ma sañoon dama naan leen fii ñuy àgg ak Kazu Rajab bu ñu fi ñëwaatee incha allahu taala di xool barab bi bëgg naa incha allahu taala li wër daara ji lépp 40 mètres yëpp ñu collecté ko ba mu daj naal bi ñu naal nga xam ne tàmbali nañu néeg yi mu àgg mbaar mi ñu tàmbali ko ba ay nit man fee nekk féete fi liggéey bi tàmbaliwaale rawatina nag di woo yéen ñi nga xam ne yéen la ci seen dërëm jot a dugg ndaxu leen seen bopp wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya ahadakum al mawt fa yaqula rabbi lawla axartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin loolu moom bu yàlla defee ndimbal incha allahu taala képp koo xam ne sa dërëm dugg na ci ak yow mi ci sa dërëm waaju dugg xamal ne mucc nga ci loolu kon nag maa ngi ci woo képp koo xam ne rek sa dërëm duggoogu ci mbooleem ku nekk Amérique Cheikh de Samad Mbaye ak mbokk yi nga xam ne ñoo fa nekk yéen ñi nga xam ne yéen nekk Espagne Italie fépp fooy mën a nekk rek te sa dërëm ñëwgu ci maa ngi lay ci woow ak loo manti man nag xeebuma ko ak loo manti man tamit nawuma ko kon maa ngi ci woo mbooleem rek képp koo xam ne yaa ngi safa alxuraanu karim képp ku bëgg a jàpp ci liggéey bi incha allah mën woote ci mbooleem koo xam ne da ngaa jàpp ci liggéey bi ak foo mën a nekk mën ngaa jaar ci numéro bi am na Wave am na Orange Money boo ko woowee Sëñ Fàllu ngay jot incha allahu taala lépp loo bëgg andi ci daara ji incha allah boo ko fi yónnee danañ ci jot lu nim bi toll allah dañ leen wax fam toll ngir timit bu àggut ñu mën a ñëwaat feddalewaat suñu liggéey bu àggee tamit ñu taxawaat fi sant mbooleem koo xam ne sa liggéey def na ci man ngeen jaar ci 77 631 42 59 77 631 42 59 képp koo xam ne woote nga ci incha allahu taala Serigne Fallou ngay jot boo ko jotee lépp loo bëgg ci daara ji xam ko sëriñ Fàllu bu soo Abdul Mutalib yaakaar naa xam nañ ko ci jàngal alxuraan karim rawatina nag yéen ñiy jaaroon ci daara ji kon nag maa ngi leen ci woo bu baax a insha allahu taala liggéey baa ngi noonu yaa ayuha alladina amanu anfiqu mimma min qabli an yatiya yawmun la bayun fihi wala xullatu wala shafaa assalaamu aleykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب